42 ñu dalal sunu gan euh, di Serigne Cheikh Tidiane si Al Amine euh, sëñ bi si nu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Euh, Georges Dethié ñu leen di fay. waaw waaw ak Barthélémy Ngom ñu fas yéene. ah Barthélémy Ngom waaw waaw jërëjëf jërëjëf euh, ñu fas yéene nag euh, ak Georges Déthié Diop euh, ci waxtaan wi le daanaka sax Sénégal tiis amatina fi ak wàccub liggéeyu xalif bu Thiénaba di Cheikh Ahmed Tidiane Seck Dembe également wàccub liggéeyu ki nga xamante ni moo yore Khalif général de Tidiane mu di Pape Malick Si tiis yooyu dal ci Sénégal. daal euh, ban séddee nga ci mën a def euh, laata ñuy dugg ci biir waxtaan wi. waaw li wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun euh, fii dëkkuñu fi ay mag yu góor yu yàlla yu yàlla wàcce woon ci ñun. Hmm. ngir ci baaxam. ñu ñëw liggéey ba seen liggéey mat ñu delluwaat ci seeni boroom ah dina xarlu nag ndax am na fu ñu féete woon. Hmm. ci wàllu diine am na fu ñu féete woon ci wàllu xam-xam am na fu ñu féete woon ci wàllu àdduna mm-hmm. euh, ñu dëddoo dina am lu jóge ci ñun ku ñu koy jaal Sénégal di jaal euh, suñu waa euh, mbokk yi nga xamante ne ñoo dëkk fële ca Cenaba di ko jaal jullit yi di ko jaal tarixa tijaan mm-hmm. di ko jaal umma islamique di ko jaal Sénégal yëpp Euh, suñu wayjur sëriñ Pape Malick si moom tamit dañ koy jaal Sénégal yëpp di ko jaal xalif général di Tijaan ko jaal mbooleem xalif généraux yi nga xamante ñu ngi ci réew mi ah di ñaan yàlla wàcce ci ñoom yërmande te ñu deseeg seen barke. amiin amiin tabarakallah mhm, jërëjëf mbirum euh, Pape Malick Sy nga xamante ni moom moo wàcc liggéey démb ñëpp. àdduna sépp naw ko ci euh, liggéeyam euh, li mu defal diine gi euh, ba defal ko diiney chrétien ndaxte gisoon nañ ko dañ ko daa gis ci lu bëri ci lu ne mel ñëpp séddeel ko du kàddu gu rafet gi mu amee woon doon faral di dox ci yu bëri ngir société bi mën a ne ci jàmm doon woo nit également ci diine gi mënees na jàpp ne daal perte bu rëy la pour ci Sénégal. waaw <clears throat> waaw Serigne Pape Malick dafa nekkoon nit ku multidimensionnel euh, ci parcours am ndax euh, parcours atypique la yore bu ñu nee euh, bu ko ko mënee wax ci tubaab mooy parcours boo xamante ni dafa am ay particularité mhm. ci doomu diine boo xamante ni ku ñu wax Serigne Babacar Sy mooy wéyjuram ah mu yar ko nag ci anam bu bu bu bu bu am solo hmm. ci wàllu diine mais aussi yar ko ci anam bu am solo ci wàllu àdduna eh, yar googu mu jaaree ko ci eh, magam bu ñuy wax Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum hmm. mi nga xamante ni moom moo ko tett ndax moom bii Serigne Babacar Sy di génn àdduna mi ngi amoon dix-sept waaye laata loolu jox na ko Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy mu koy mu mu jàng ko alxuraan jàngoo ko li mu ko war a jàngal ci wàllu diine waaye it forme ko formé ko ci wàllu àdduna formé ko ci wàllu mboole mi xam yi nga xamante ne xame woon nañ ko. maanaam daal dafa euh, je dafa teel a jublu ci wutum xam-xam. dafa teel a jublu ci wutum xam ndax ki ka euh, ki kay yar xam-xam daf koy ñor ki yar xam-xam rek moo doon viatigam ci àdduna. Mhm. Euh, fa tabarakallah kon mu ne ko nit koo xamante ni dafa ubbeeku ci àdduna ndax ku xam Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy ci yaram da gis toujours ci waxtaanam moom da def référence ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy mhm. ku xam ci wàllu àdduna li mu liggéey yëpp eh, ci wàllu Sénégal wala bitim réew eh, ci jëflante yi mu jëflante ak nitu àdduna yi wala aussi ak nitu diine yi da xam ni nit ku ubbeeku la ci wàllu eh, xam-xam nit ku ubbeeku la ci wàllu nekkin ci société wa tabarakallah kon loolu mooy doon taxawaayam moom ci àdduna mu nekkoon nag nit koo xamante dañ ko daan wax sax ne papaam daf ko daf ko daf ko yàqoon bu nekkoon xale tabaarakalla waaye yàq boobu euh, cofeel la bu papam amoon ci ki mu ko tudde muy euh, Seydi Hadj Malick mu nekkoon caatam mu jël ko jël waaye cofeel ba mu amoon ci sëriñam ci baayam ba mu wàcce ko ci doomam jooju. Hmm. Moussa Malick si waaye teewul. rigueur ba nga xamante ne moo amoon ca ca ca ca éducation mhm. def na ko jox ko Serigne Cheikh mu mu yar ko yar bu yar bu am solo dara wax naan Serigne Cheikh ma éduqué Serigne Cheikh ma formé Serigne Cheikh ma enseigné euh, Serigne Cheikh a fait de moi l'homme que je suis devenu aujourd'hui kon euh, fa tabarakallah euh, nit la woon boo xamante dafa multidimensionnel amoon relation nag ak mbooleem Euh, kilifa diine yi ci réew mi amul relation ak mbooleem nitu àdduna yi amul woon frontière ci diine wax nga ko sànq ndax daan nañ ko gis muy dem ci kër euh, chrétien di kër ci labbe yi di waxtaan ak ñoom mhm. amoon aussi ouverture ci ci politique ndax gis nañu ne ci combat Serigne Cheikh politique yi yi nga xamante ne moom lañ njëkk a song ànd na ceeg moom waaye moom ci boppam ne moon nekkoon na ci ay parti révolutionnaire ci ay PAI yi nga mhm. xamante ni ay parti yoo xamante ni dañ doon xeex Eh, ci ak nguur dafa nekkoon muy daan faral di wax ni toujours ci discours am man musuma nëbb sama ay position politique donc dafa nekkoon nit koo xam ne dafa multidimensionnel. comme ni ko mhm. waxee. maanaam daal fànn boo dem si société bi fekk ko fa muy mu cay euh, defi jéego. mu ci def jéego ak ak anam bu gën a rafete nag. ci anam bu mu gën a rafete di assumer nag ay responsabilités en tant que homme religieux mais aussi di assumer ay responsabilités en tant que. homme tout court ci wàllu euh, euh, société ci wàllu xam-xam ci wàllu euh, économie mboolem mboolem lu nga xamante ne àdduna ëbb na ko ci taxawaay. Mhm. taxawee na ko ci anam ba mu gën a rafet. en tout cas kàddum gu rafet gi ñëpp nawee nañ ko ko yi mu doon def yaa ngi koy wax léegi nit ku multidimensionnel la ba tax na war nañu ko jël ay comme référence rawatina jeunesse bi ci réew mu nga xamante ni daanaka lu ne lañ fiy gis ci Sénégal war nañ ko citer

ñun ay copainam lañ daan woowee nee nañ ñun ñoo ay copainam ndax dafa bokkoon ak ñun génération dama naan ko poñ lekk di ko wax ni que papa léegi yéenay màggati ñu ñooy mag ñi. Mhm. loolu lépp loolu lépp day wone woyof gi woon ci moom. woyof bi nekkoon ci moom modestie bi mu amoon dafa ma daan wax naa naan la vieillesse est un état d'esprit pour wane ni que mag mag mag taxaw tolluwaay la rek ci nit boo ko defee sa bopp rek mu nekk nekk màgget euh, fa tabaraka la mu amoon nit oyof boo xamante ni maa ngi def raconté benn anecdote matul sax weer ci gannaaw wala ñaari mhm. dama ko woo suba téléphone ne ko ah papa damay bëgg ñëw ziar si la mu ne ma euh, déedéet man maa lay ziar ma ne ko déet papa mu ne ma fan nga nekk ma ne ko maa ngi sama bureau mu ne ma man maa ngi ñëw déplacé wu tey ziar si la ci oyofam Mhm. ma insisté mu insisté taal oto ñëw ba sama bureau toog ci waxtaan pendant deux heures de temps. day wane ni ci Euh, ñi nga xamante xam na suñu kër yi ni ñuy fonctionné. Mhm. jafe na lool way jur yëkkati tànkam dem seeti doomam ci bureau mhm. ci suñu société sénégalaise sax en général loolu du faral di am mhm. waaye oyofam mu xamante ne tey moom moo fii suñu sëriñ Abdou ñun nga xamante ne ñooy njabootam moom moo fi suñu sëriñ Baba Si ñun nga xamante moom ñooy njabootam ñu jóg ci oyofam ñëw ba ci sama bureau toog waxtaan ak man kooku day wane ni cofeel bi mu amoon ci njaboot waaye aussi sàmm bi ñuy sàmm képp koo xamante ni ñu ko njaboote te nag loolu dafa ak daf ko daf ko assumer gannaaw bi nga xamante ne ay way juróom ay magam waccal nañu ko Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy mu ëmb ay njabootam ñi nga xamante ne mooy njabootu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy ëmb njaboot ñi nga xamante ne ñooy njabootu Serigne Abdou Alamin ñu ëmb mbooleem kër Serigne Babacar Sy ah waaye it di assumer rôle bu am solo ci kër Seydi Hadj Malick mhm. nekkoon porte parole am ñu xam ko ci kàllaama bu bu rafet bi ñu xam ko ci wax bu rafet bi ñu xam kaddu gu leer gi kaddu gu leer gi surtout surtout kaddu gu leer gi mu doon nekkoon nag ci euh, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ci wàllu euh, euh, fasaaxa ci wàllu làmmiñ bu bu bu rafet fa tabarakallah mm. ah, nga gis ko muy euh, di wax ci kàllaama tubaab kàllaama bu leer mm. waaye yit ci kàllaama arab kàllaama bu leer fu mu waxee alquran nga xam ne kii fi ci école bu am solo la génne fa tabarakalla mën na la cité nit si léegi jóge fa cité la xadis yonent bi salallahu alayhi wa sallam day wane toujours encore cette cette dimension multi cette cet aspect multidimensionnel multidimensionnel bi nga xam ne moom la nit ki moom la nit ki amoon est-ce que mënuñ jàpp itam ni pousse la woon ab rassembleur la woon ndax buñ seetloo gàmmug Tiwaawan bu jotee da doon jóge ci zawiya yi di wër di wër zawiya yi yenn saay sax nga nga gis ko bu dul euh, jamonoy euh, gàmmuy Tiwaawoon nga gis muy ànd ak euh, xalif général de Tidiane ba woon di Al Amin di ànd ak moom ci yeneen kër ya. waaw loolu moom dafa mës a nekk nit ku ci yar bi la. ku ma ko mën tuddee yar gi nga ko yar ku mel ni sëriñ Cheikh nga xamante ñëpp xamoon nañu ko ci mën a doxan doxlante diggante këru diine yi moom noonu la meloon. amul benn frontière ak Touba dafa amoon ay xarit maa ngi fàttaliku bi suñu way jur si Sidi Mokhtar génne àdduna ci suba teel gi ci la taal otom juba di Touba ne moom dafa amul relation particulière ak Touba donc kenn du ko fa jiitu. Mhm. gis nañ ko dernièrement mu nekk ak euh, ñi nga xamante ne ñooy euh, euh, l'église dem seeti ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko ŋànk. Mhm. toog waxtaan ak ñoom saafoonteeg ñoom te loolu ay ay peut-être image yi nga xamante nit ñi ñoom la gis ay doomam ci école catholique la ñu jàngee. Mhm. man xam naa leen bu baax maa maa maa ngi ciy profité di leen am ñaari fii Sophia Sophia ak Soxna Fatima. Mhm. xam naa leen bu baax xam naa li nga xamante ñoom la ñu ci moom ndax xam na comme la mu mën a am kër chrétien du ko teree bàyyi aussi xel li nga xamante ne mooy euh, euh, cosaanu maam li nga xamante ne mooy cosaanu diine. Mhm. la kon nit la woon boo xam ni euh, multidimensionnel la ci parti politique yi li may wax nii peut-être. am na euh, fu ma koy teg. Mhm. am na benn ministre di politique boo xamante ni ñaari fan ci gannaaw woon na ma koo xamante ni sax bokkul ci nguur gi ne ma damaa bëggoon waxtaan ak moom te ñëpp xamoon na ni soutien bi mu amoon ci président Macky Sall teewul day rab képp koo xamante ni nitu euh, politique la bu. waxtu waree waxtaan ak moom dina waxtaan ak kenn la mu a wax ak yow dina ko wax ak yow du tee kam mu xaw xam nga xamante ne moom la moom la joxoon xolam ci wàllu politique mu ànd ceeg moom di liggéey mhm. ndax danaan wax naan man du ma euh, euh, am ci parcours politique la ko la ko la ko dund la ko def mhm. euh, bii yàlla def mu ànd ki nga xamante moom la ànd moom moom nekk ci bopp réew mi fa tabaraka la waaye teew mu continuer di am relation yu am solo ak mbooleem homme politique yi nga xamné ne ci Sénégal euh di transcender religion yi di hmm. transcender culture yi di transcender euh, euh, euh, euh position politique sëñ Cheikh ban jangat nga mëna def ni li euh niñ ko denc ci wetu euh, magam di al maktoum ñu bari sax dañ japon ne ñi xamul euh ni domam la ndax ay al maktoum la gënoon di nekkal sax Mhm. waaw euh, dañ ci profité di ko jaal mboolem waa euh, kër Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si ndax moom dafa leen jàpp woon comme ay euh, seen ay rakkam. Mhm. li wax sànq rek moom dafa ne ñun ñëpp ay ay copain am la nga xamante ne ñooy doomu Serigne Abdou wala ñi nga xam ne ñooy doomu Serigne Cheikh lii ñu ko denc ci wetam day wane rek ni d'abord relation fusionnelle bi nga xamante ne amoon na ko ak Serigne Cheikh Ahmed si mu yar ko daan nañu toog foog naa. semaine boo xamante ni ñoom ñaar bés bu ne dinañuy gisante. daguma la ndax li ñuy faral di gis moo di euh, ku génn àdduna yenn saay li muy bëgg moom mooy ñu dañ ko ci wetu way juram. Mm-hmm. waaw moo tax man la. seen cher parce que dañ ko ko joxee boobu lu ndaw la. Serigne Cheikh moo représenté Serigne Babacar ci moom kon loolu moo tax tey denc ko ci wetam day nekk lu jaadu. Mhm. Euh, ñi bi mu génnee àdduna xel yëpp ci loolu la dem te xam naa ne looloo tax njaboot yëpp waxtaan ci xam ni foofu mooy place am ndax relation bi nga xamante ni moom la amoon ak Serigne Cheikh relation bi nga xamante ni euh, li nga xamante ni

waaw xam nga am na nit ku nekk ak parcours am. Mhm. man euh, mënuma xam la moo nekk ci boppam exactement mais nit ku nekk ak parcours am di nekk jamono joo xamante ni mosul bàyyi politique nag. Mhm. su ma nee politique dans son sens.

ci réew mi jël na position am nga xamante ni war na faa mën a jot jot kàddoom ngir réew mi jot jottale na fa kàddoom kon musul bàyyi politique ana peut-être dafay am ay engagement yoo xamante ni day fës ak engagement yoo xam ne du fës. dafa war a la kon noonu la mës a dundee àddunaam ah euh, di wane nit toujours dafa mës a élégant ci comportement am. Hmm. élégance comportementale boobu mooy tax lu ci bari. bu fekkee ni que réew toll am na fu mu toll peut être du bëgg a wane yenn eh, jafe-jafe ndax nitu la te nitu di ko waral ci àdduna mooy mu defar bañ a yàq ba ko barakallah kon peut être loolu moo ko war a mën waral mais man musuma gis foo xamante ni war na faa mën a addu ci wàllu politique te addu wu ci. Mhm. Euh, mu ngi woon ci ci wetu njiiti réew mi wàllum politique boobu ba léegi euh, mu ngi woon euh, ci wetu njiiti réew mi donte sax taxu taxul ko woon mu tëj ay buntoom ci ñeneen acteur politique wi bi muy dem ci Macky Sall euh, ngir euh, jàppale ko ci euh, mbir moom lee jot na cee waxtaan ak yéen. ah déedéet kooku nag moom ñun nag suñu kër demewul noonu. Mhm. suñu kilifa yi ku ci nekk da am sa liberté boo xamante ni la ngay position ba ngay jël da nga koy assumer. Mhm. ah du du du nekk nag loo xamante ni ndigal lay doon ci ñi nga xamante ñoom la àndal ndax. booy xool ci kër gi am nit ñoo xamante ni ñu ak le président Macky Sall am na ñoo xamante ne ànd nañu ak moom. maanaam daal ku ci nekk ak sa ci yaay demee sa coobare bopp. ma ngoog dafay am liberté de de de de positionnement boo xamante ni ku nekk am nga ko. musul am benn unité d' action politique ci suñu kër boo gis booy gis booy xool histoire politique de Seydi Hadji Malick toujours day am ay ay ay ay ay du ma wax sax ay woro mais dina am ay différence. li nga xamante ni mooy. ci le position yi voilà yi yi suñu kilifa yi wala sax ay njaboot yi di assumer mhm. te ku nekk nag mooy nga jël sa position di ko assumer ci anam bi mu gën a rafete kon euh, musul ñu exiger ñun wala exiger njaboot yi pour ñu dem ci benn camp politique wala benn beneen camp day jël position assumer ko bàyyi nag ku nekk ci sa jël sa euh, position bopp sa position bopp d'accord ñu ngi lay gërëm euh, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al ñu ngi leen di gërëm di ko jaal suñu wayjur soxna Mam Bass ak mhm. ña ay doomam mhm. di ko jaal xalif général di Tijaan Sëriñ Babacar Sy Mansour di ko jaal ak ay mbàkkee rakam mais di ko jaal particulièrement doomu Sëriñ Cheikh Ahmed Tijaan Sy mhm. et aussi yi nga xamante moom mooy représenté tey Sëriñ Babacar si Sëriñ Mansour Sy Jamil di ko jaal di ñaan yàlla moom tamit eh, yéen bi nga xamante ni moom lañ ko yéen jàppale ko ci jërëjëf jërëjëf Sëriñ Cheikh Tijaan Sy